ñëw di waaj saison bi ñu naan nag ñëw seet si ndaanaan mobile am na lu def ci làmb mu voyagé woon ñëpp na mobile du ñëwaat mobile dellu si tey ñu ñëw fekk su ko bëgg a waxtaan ak moom Malcom topp ma ñu dem soxla mobile. salaamaaleykum gars def. yéen ci jàmm. ngi doxal bu baax a baax. na sant. ana mobile. mobile mu ngi si biir kër gi. mën nañ ko. waaw mu ngi gis ok jaajëf. jaajëf jàmbaar naka mu gaynde siyaar naa la ndaanaan ci loo nekk ñu ngi sant yàlla bu wér yaa ngi am jàmm waaw maa ngi sant bu baax a baax naka journée bi waa sant yàlla sa se passe bien quoi waaw tey ñëwoon seet si laajte fii gars ne ma mobile lañ ci biir waaw gis nga boobu maa ngi nii toog nii gars yi loolu yee naka tàngaay bi. waa sant tàng na tuuti tuuti rek waaw waaw waaw. pour gars yi lay seetaan ki ñu seet si mooy kan. waaw kii mooy mobile doomu garaaf bi <laughs> mooy loolu loolu a xam waaw. sëtu kan ah sëtu <laughs> ah, ngi doon de xale baa ngi lii de <laughs> ah, waaw. tey ñëwoon seet si la bëgg waxtaan ak yow waxtaan waxtaan bu yaatu xam nga demoon nga voyage dellu si waat bi nga demee ñëpp ne mobile daa day daw du dellu si nga ñëw xam nga bëgg a wane làmb ci nga bokk ku la xool xam ne am nga état de forme bu am na looy waaj am na loo bëgg ci làmb tamit. waaw waaw waaw c'est juste comme ni nga ko waxee moo ñu yëkkati woon demoon pour yokk tamit suñu expérience parce que tamit bëri nañ ba toll ci làmb foo xamante ne ni xëy na li weesu weesu na mais suñu kanam waratuñ ci def yenn erreur yi kon yoon la woon ñu génn dem entraîné ji amaat beneen niveau bu ñu dolli suñu bopp tuuti ñëwaat quoi loolu rek moo ñu yëkkati woon mais kantaa ñi doon wax dafa daw wala dafa woon lii wala laa xëy na tamit seen gis-gis lañ doon waxee rek wala gis nañ say morom yu dem def loolu tamit te xam nga ku nekk lii la yëkkati woon xëy na ñooñ dem toog fa bi ñuy jóg dañoo jógoon pour dem toog fa man mi dem dellu si bi may jóg damaa demoon pour demoon dellu si loolu. est-ce que doon nga yëpp maa doon jot écho yëpp. bi nga ko déggee nu mu la def. la na du dellu si waat. non vraiment defuma woon dara nag defuma woon dara wax dëgg yàlla. Hmm. non non parce que man en personne xamoon naa lan moo ma yëkkati quoi. Eh, kon defuma woon dara. gaa yaakaar da nga demoon pour MMA bi ñu yaakaar da nga demoon pour liggéey est-ce que MMA bi yaa ngi ci doon bi nga demee gis gars yi mbër di ko def est-ce que sa xel a ngi ci woon. waaw waaw ñun sport moo ñu yëkkati woon ñu ngi woon ci lépp ñu ngi doon def lépp wax dëgg yàlla lépp loo xamante ne nii méngoo culture bi ñu def rek ñun ñu ngi ci woon waaw pratiquement nag entraînement yi moom lañ gënoon suivre mais yooyu ngay wax yëpp doon nañ ko kon yaa ngi ciy yëngu MMA bi yaa ngi a ngi waaw waaw. suñu xel mu ngi ci ñun beneen niveau lañ bëgg nekkaat quoi. mais noo gisee làmb ji làmb ji saison bi tijji na combat yi taxawagul ak fi làmb tolloon ni làmb meloon ba léegi làmb tëj yi combat mag yi ngay dégg da leen ñëpp mën leen a wàññi ndax bariwul noo gisee làmb làmb est-ce que moo ngi dox. waaw mais àdduna noonu la yaa de wooyee da baax tamit dañ doon toll période boo xamante ne heure bi da doon fekk ñëpp toog ci avance di xaar dëggam déet waaw buñ tollee ci période bii nii am avance ñi amaguñ avance tamit dañuy xam ne làmb ji moo toll foofu rek mais li wax ji mooy nekkul dañuy nekk ci média bi chaque jour naan làmb dee na làmb dee nekkul moo ko yëkkatiwaat li ñuy def mooy jéem toog ñi seeq làmb dajaloo xool lu ñuy def ba lan moo indi faay bii nii ñu trouver ci solution nekkaat ci quoi. mais est-ce que du ci mbëy est-ce que du mbëy ñooy laaj loo xamante ni mënuñu koo jot est-ce que du ñoom ñoo tënk seen bopp. mais est-ce que du yi ñoo tàmmaloon di fay mbëri loo xam ne nekkul woon ci ñoom parce que xale du jooy lu mu xamul. mais est-ce ñoo ngi lay contacter boobaa bi nga dellu see ak léegi. waa chaque jour chaque jour ñu ngi ñooy contacter quoi waaw ñu ngi ñuy contacter chaque jour mais ñu ngi toog di déglu rek. gisagul mbër bi la gën a dana fay prix bu la arrangé gul wala ñi lay proposé nga bëggul. waaw problème adversaire yi ñu ngi ci tamit mooy loolu noonu te tamit en plus ñun ñi ngi ci contrat bi dem ñi ngi woon ci contrat xanaa dañuy toog di xaar promoteur bi yeewi ñu ñu nekk ci li ñu war a nekk quoi. contrat boobu noonu yàgg sa combat kan la woon doomu daangu n'est-ce pas boobu léegi yaa ngi ci contrat boobu. waaw maa ngi ci contrat boobu noonu parce que si diggante voyage naa fi en plus mais comme promoteur bi desaloon naa ko benn combat. moom lañ doon déglu quoi. léegi da ngay bëre boobu ba noppi doo ko laaj benn avance wala nu mu demee. non ça dépend rek ça dépend rek moom promoteur bi daal bu ñu amoon lu ñu gënal moom la ñuy bëreel parce que tamit suñu waay la en plus toog na xaar ñu bopp blessé nañ fi ba yor mu toog xaar ñu ñu tukki fi mu xaar ñu ba ñibbisiwaat kon bu ñu amoon lu ñu gënal moom la ñuy ko quoi balaa ñuy bëreel kenn. dama laa dégg nga dugg ci fee bi ñëpp jël moom bi daf ko favori nga def sa bopp favori est looloo la yóbbee li la daal ci TFP bi. waaw TFP dafa bokkoon ci loo xamante ne nii sama destin la bokk rek parce que tamit. non est ce que da nga yëgoon sa bopp parce que damaa gis ñu ne Ramdan doomu daangu ñu ne mobile soq yi ñaar ñëpp ngeen mel ni ku namoon loolu loolu tamit jaay TFP bi ñëpp xaar leen ci loolu ñëpp xaar leen ci loolu. est du du loolu moo la moo la moo la moo la yóbbee daal nga def sa bopp favori xeeb ñi nga war a dajal. Mm-hmm. loolu moo la yóbbee loolu. non pourtant nag dugg nañ ci ba ni ñu génnee amuñu si woon ku ñu xeeb. amaana tamit bi ñu def suñu ñun waxuñ ñooy favori wala ñooy lii wala ñooy la. mais ñii seetaan def nañ la favori def nga sa bopp favori parce que ñu nga doon bëreel ñëpp yaa leen ëppoon ëpp gabay taay bi xam nga dàq leen wax boo ñëwee tuus mu neex soo bëree mu neex yooyu yëpp nga dajale ko. waaw loolu yàlla moo koy def ci nit xam nga tey ñun fayuñu nit ñi fayuñu amateurs yi nga xam ne sax dimanche ñu ngi làmb ñun boo xoolee temps temps la ñuy seetaan si wala suñu bis moo ñuy yóbbee saat ñoom ñi nga xam ne chaque jour ñu ngi ci làmb bu dara taxawee nga bokk kook say huit morom ñu taxaw ne diw mooy favori ñoom li ñu gis ba di ko wax ñoom ñoo ko xam xëy na ñoom temps bi ñuy paas si làmb duñ ko ci paase yàlla mooy def loolu ci nit ñu dugg ci suñu borom féete lañu si côté boobu noonu lépp lu ñuy séntu ci kalaaf bi nit ñi jàpp ne bu neexee rek ñun ñoo ko war a mën a def moo tax ak fu ñu si mënoon toll rek chaque jour dañuy communiquer ci li koy neexal mais liggéey la woon boo xamante ne ni moo ñu tënkoon ñuy def loolu boo xoolee bi ñu si boobu lañ si gëj wax pare nañ si ñu ngi ci leneen. ñu gis la sa combat ak Sokh ñu yàgg ko dox ngeen tase foofu mu nekkoon combat am ne combat capital la woon parce que ku ne xam na ni mu demee avant muy taxaw promoteur bu noo ko sottiwul Fallou Ndiaye dajale woon ne est-ce que doonoon loo xamante ni bi nga déggee mbay ci bokk est-ce que yomboon na pour nga dugg ci. parce que man bala ma ciy dugg combat spécial lañ lañ ma si tëggaloon bokku moon tournant man may wax ak promoteur bi combat la ñu waxante woon sama diggante man ak Ramdaan la woon mu jékki-jékki mu am idée calaf woowaat ñu ñu toog ñu bu proposé waat ko ñu d'accord ci. parce que tamit liggéey moo ñu intéressé bi ñuy signé moom benn làmb la woon pour saison boobu wóoruñu woon ba xam bu ñu si génnee nañ bëriwaat kon bu ñu gisee loo xam ne tënk nañu pour ñu bën a bëri ñetti yoon ci année bi dañuy dem moo ñuy gënal li ci am solo ba am solo mooy nañ ñu fay li ñu teel. ngeen waxtaan juboo nga gis sa bopp nga dugg ci làmb ji yàlla def dogal li muy dogal bi nga ci paree sa xel nekk ci voyage voyage dund leneen xoolaat parce moom day yokk expérience wala xam-xam doole. te ku la xool macha allah xam ne andi nga doole nii nii bu avance ñëwoon est-ce que pare nga pour pour pour pour faxas li nekk ci ginnaaw li nga xamante ne jotoon nga ko fee bàyyeek lépp. waaw voyage moom ku nekk xam na li muy def mooy li gars yi di wax boo tukki lu bëri munoo xam lu bëri mooy bi ñu tukkee nekk nañ ci li ñu war a nekk te bu fekkoon leneen ak leneen moo ñu yitteel mun nañ toog fi ñu nekkoon parce que ñu fa yomb mais làmb la ñu bëgg moo ñu delloo delloosiwaat. ñu am lu ñu fi bàyyi woon loo xamante ne lu bëri lu ñu war a dindi la am fi suñuy soppe am fi suñuy supporters yoo xam ne ñu ngi toog di ñu xaar ci boobu kon c'est normal ñu ñëw leeral loolu jàllaat quoi loolu kese moo ñu indiwaat du la ne. mais dama dégg ñu ne dangay pare pour delluwaat est loolu dëgg la. ah waaw xëy na mun na nekk. non da ngay delluwaat pour entraîner ji wala da ngay dellu pour joobi wala da ngay dellu pour dem def MMA. non man moom bu ma xasee ba génn Sénégal dem. bu may man bu may génn Sénégal sportif laa damay génn comme sportif mais bu ma demee lépp lu ma fekk loo xam ne am naa ci intérêt dama koy def bu mu doon loo xamante ne ku ma ci jàpp ku ma ci fekk ma rus wala ku ma ci fekk ma am gàcc. gars yi dañ mobile dafa dem jëndi bagage ñibi si jaay placé su paree delluwaat est-ce que du da ngay dëggal loolu lu tax bàyyiwoo ba am làmb doo ko delluwaat. waaw xam nga booy dem di jëndi bagage mooy ku jëlee fii xaalis yóbbu bitim réew dem jënd fa bagage mais man bu may fii bu dul sama walis ak sama billet avion aw ma lu may topp est que de moo gars yi jox la xaalis jox la xaalis kay jël nga may ma yokk coore ndax bagage yi pour la <laughs> kay ma xaalis ak ma dellu benn ñu dellu si waat mobile kenn la dugg ci làmb. maa ngi ci dugg fin 2010 presque 2011 mooy bi Boy Niang di bëre ak Pape ci laa njëkk a bëri arène. Saat Iba Mar. yaa Saat Iba Mar. Mm. ñaata combat nga def. def na. treize combats yaakaar naa bu juum. ñaata victoire. am naa huit victoire. kan nga daan. Ah, ñu daan daan naa doom waalo. Mbaye Dia Diop de daan naa Tafa Leer affaire yooyu doon Rouge Bordeaux daan <laughs> xaw jàppatu ba ñeent gars boobu ma ci gën a neex nag yaakaar doole dama gis ngeen bëri lu neex. combat bu yàgg ngeen xeex. lu waral loolu dafa amoon règlement de compte wala da ngeen woon nu mu demee noonu. non du dara parce que làmb day am bis yoo xam ne daf lay wane day yoo xam ne da wane ba leneen lu fi mun a jaar nit ñi buñ to nañ mer ci moment bi ñu fi jaar mais ku ñibbi toog day xam ne kii mun na lopp lii. Kara Dollé xëy na dafa tombé woon ci jour boo xamante ne bis bu ñu waroon wane la ba pare moom mu ñëw waaw dafa joxe dafa ñëw wane dëggal boppam. man ma bë ma gis mu bëre loo xamante ni man gëj naa ko gis wala boog maa ngi koy doon doo ko gis bis boobu nga ñëw wane sa bopp jaayante. waa moom dafa ñëw joxe mooy. muy combat yi ma gagné ak yi nga xam ne dama ko perte yëpp adversaire bu ñu ñëwee joxe rek dañuy bëre mais boo xoolee samay xaaju làmb yëpp yëpp yëpp li gars yi di signature ak li ñuy bëre du benn buñ adversaire bu ñu ñëwee duñ joxe li ñu war a joxe mais Kara xëy na bi mu ñëwee joxe na nangu na xeex nangu na taxaw suul ay tànkam ñu bëre moo waral bi ñu bëree mu neexee noonu quoi mu nekk jàmbaar ju mag moom tamit vraiment. mais lan mooy problème mu mobile 2 lan mooy problème mu mobile 2. problème problème mobile day ñëw ci làmb andi état ñëw tuus képp ku ànd ak moom doo ànd ak moom ñëw si xel ngay xaw a jiixi jaaxa du am la mooy problème la moo téye mobile 2 te ñu woon ñu mu woon bokk ci troisième tranche bi ñoom Modou bu ñu wàccee ñoom saa Sa Thiès pourquoi mu woon bokk ci révélation ba yéeg ba léegi mu taxaw di xaar. waaw loolu destin la rek parce que bu nit ñi xoolee ci Eumeu Sène waratuñ kii benn mbër muy man chaque jour li may wax rek mooy ma ñëw ci làmb ñi may yóbbu ji ñu quitté suñu kër la ñuy xam ne kii parewul wala nga ñëw si meeku ñu toog ci tën bi yëpp xam ne parewul loolu laa jàpp comme defet mais làmb heure ma si ñëw ni ma war a mel laay mel biir géew li ma sama xel jox aw ma lu ma ciy dute loolu laay def ni suñu borom di ñëwee nag loolu programme yàlla la dañ koy bàyyi moom moom. lu suy bëre day jël engagement wu boppam ko coach bi moo ko dirigé na ko lii ngay indi tey tey. Hmm. waaw li bëri ci lu may bëre nag comme nii ñu toogee nii gaale rek xam fii moom jotaay la en plus sama bi topp ci man day bëre ba pare moom bërekat la quoi mun na bëre. des fois la ñu toog di mbalagante mu naan ma kii nii la mënee nii la mënee des fois ci ay waxam yooyu laay xaw a bëree la affaire yi demee noonu quoi. nga am daan mu daan la jàppee ko victoire parce que nee moom ci wàllu boppam lan la wax nga ne bi mu demee ci plateau bi. waaw moom ci wàllu boppam moom dafa ne dafa tarxiis comme li ma la doon wax sama combat man ak Ramdaan sama rakk boobu ma lay wax wàcceewu ma ko dama ko yéegaloon ci kaw pour mu bañ a wàcc mais comme moom dafa xaw a naqar deret day histoire lu bëri ma yéegal ko. bi may bëreeg Ramdaan benn saa ñëw na ba tiim sama cumukaay ne ma kii waroo bëreeg moom da war a xeex ak moom bi ma duggee ci làmb gis mobile boo taxawee dëggal sa bopp ne damay xeex ak nit du la résister pourquoi xeex suy bëree waaw kay mooy li ma la doon bi ma ñëwee taxaw pour xeex ak moom boo xoolee moom xaaruma fa fu ma mébee ñëw mu jóge fa kon li ma booy bi doon wax bu ma fa teg woon làmb ji mun na jeexee foofu mais boo xoolee bi ma bàyyee xeex bi dem bëri ji damaa ñàkk da nga bu bari samay tànk lay jëm da nga gis bu mébee sax. nga reculer moom boo xàccee mu reculer. non boobu boo gisee moom heure bu mebee jóg ma pousse foofu noonu parce que bëgguma ñu jàppante dama bëggoon ñu xeex moo ma bëgg mu jékki ma fu mu mébee damay pousse foofu pour mu taxaw ñu corps à mais boo xoolee dama am méb rek mu daw yooru dajeeg man si laa ko bal. mu resu waaw mu resu ma daw dàq ko nag mu koy dàq muy dajeeg man di plaqué ma koy njiin boobu dama ko doon njiin pour mu këpp mu rocceeku génn ma dóor kàttan hmm. mais boobu dama dëgg tamit ci saako bi. te saako bi ci baas bi lañ koy teg quoi ma jóge ci saako bi saako bi daw. sa combat ak Sokh ngeen ñëw ba taxaw lu yàgg ba ngeen def benn contact mu jeex est que loolu nga liggéeyoon bi ngay ñëw jàppante rek làmb ji jeex ak ni ngeen taxawee léwtoo léwtoo bu yàgg avertissement yi di jóg supporter yi di kaas ngeen jàppante rek mu jeex. waaw man moom ni ma man ni ma perte man noonu laa xalaatoon ne noonu laa koy daane mooy dama amoon gëm-gëm ne bu jàpp rek muy ñibbi moo tax amu ci benn jaaxle. loolu laa mosoon gëm loolu laa indi woon ci làmb ci mooy bu ma ko jàppee day jeex. nga pare ci combat yi ak Sokh nga ñibbi si toog dinga nga am loola metti moom ndax waaj dafa metti est-ce que yaa ngi xalaat dajawaat ak moom. waa làmb man moom muy ñi nga xam ne maa leen daan ak ñi ma daan ñëpp maa ngi xalaat dajawaat ak ñoom man tàng maa ngi ci làmb rek dara génnul ci man ñëpp maa ngi waaj pour daje ak ñoom yàlla xam na loolu parce que. man chaque jour dama koy wax man ci làmb laa bokk munoo fi ëppoo ci doole gënoo fi nit ñi gënoo fi kii mais boo demee ba ci làmb foo dugg see ci làmb ñu xam ne kii mooy diw sa bis am na nu ko nit ñi di xàmmee comme nit ñi xàmmee bis ponkali kon ci làmb nga bokk. boo tuusee mu neex. waaw waxatuñ loolu. <laughs> sa combat yaag doomu dàngu. yaa ngi koy xaar ndax lu ngeen war a confirmer la yaag moom. mun na nekk moo ngi ci yoonam yaa ngi sa yoon mais lu ngeen war a bëri la yéen combat bi taxaw nga war a dajeeg moom nga ne pied gauche bi main gauche bi ngay daw lu tax loolu communication boobu. non boobu dañ doon wax quoi comme moom lu mu expliqué ne moom xam na ne mobile bërekat la gars yi di ko laaj mu ne moom xam na ne mobile li ñuy wax sax moom mu ne man mboot laa gën a mën quoi moo tax comme moom nangu na ba apprécier di la wax say qualité moo tax man leen am na loxoom mais bu ma rombee loxo bi dama koy daan. di nga ñaar di ngeen bëre xam nga loolu loolu dafa leer xam naa ne dinañ bëre. Hmm. Hmm. làmb ji tijji ñuy wax combat Modou loo Ama Baldé combat boobu est-ce que yow boo amoon loo ci loo ciy wax lan nga lay lan lay doon combat bi neex na la wala bëgg mu taxaw wala. daa war a taxaw bu taxawoon ñun ñi ñëpp dañuy lekk avance dafa am bis yoo xamante ni ci làmb li ñuy jooy nii naan làmb ji da heure bi waroon na fekk nit ñi bëre heure bi waroon na fekk nit ñi seen xel di génn làmb bis yooyu moo koy delloo si Ama ak Modou Lo danoo war a bëre Balla Gaye ak Modou Lo fii lañ tolloon bëre. différence bii ñu am am ak Modou Lo différence bii la Balla Gaye amoon ak Modou mais bi mu xamee ne bëreeg Modou Lo mooy tax làmb am benn ampleur bi dafa dellu si bëreeg Modou kon ne li mu doon def yàqalu ko dara dañu war a bëre. benn différence rek moo ci am mooy Balla bi muy dellu si di jël Modou nekkul woon roi des arènes Modou nag fii mu war a ñëwee bi rek Ama daf ko fekk ci roi des mais amul leneen dañu war a bëre ñoo bokk stade yi ñuy duy muy fees amitié lay bëre mu fees Ama bëre fu ba ñëw jàpp nga ne Ama Modou Lo luy delloo waat làmb la fi ñu tool da koy indiwaat ci coow li mu nekkoon dañoo war a bëre. ñu dox combat bi Ama ko bëggoon ñu dem ba ci biir Modou Lo d'accord kanam Ama Baldé taxaw di reculer est-ce que du Ama dafa xool làmb ji baaxul bëgg koo delloo si est-ce que loolu maanaam xale bu yootu mag est-ce que war na taxaw du war na doxee noonu ci làmb bëgg combat ba ñëpp gis ko du ko dox nga dem ba ci biir kii est que du moom moo yàq làmb ji. waaw moom dañ li ma dégg si communication bi problème mu kase si lañ nekk ci ay quatre-vingts millions ak ay cent millions ak ay lii ci loolu lañ nekk waaw mais tamit am na yenn làmb yoo xamante ne nii boo koy jël mu fekk la ci benn niveau daf laa war a jëlee ci niveau boobu bu la fekkee ci yenn kase yi daf laa war a jëlee ci kase yooyu bu la fekkee ci yenn dëkkuwaay daf la war a jëlee ci dëkkuwaay boobu ama bu bëree Modou loo ba pare ku ko romb da nga ko war a ñëwee. que su doon yow la loolu dina yàq sa làmb nga xool koo xam da ko yàgg a Ama Baldé dégg naa ko mu ne bu Modou Lo doon bë beeke sax bu doon doxee beeke sax dina nangu beeke bi daan ko ba noppi joxaat ko beeke mu dem est-ce que su doon yow la nga dem ba tellu période boobu ak différence de kase bi est-ce loolu war na laa mën a tax yàq sa làmb waaw xam nga gars yi dañuy jaawale communication yi taxawal làmb communication boo xamante ne pour ñu waxaale combat bi la ak li nga xam ne moo nekk ci nit ñi Ama Baldé mu jàpp Modou rek daan ko jéggi ko dem ñibbi amul ko njëriñ li ko amul njëriñ mooy li mu perte Modou Lo ko war a may wala li mu amagul Modou da ko war a may te mun na ko amee ci Modou muy xaalis wala muy leneen ak leneen looloo koy dugal ci làmb ji mais coono bi nekk ci làmb ñëw daan ci nit nii rek dem ak kooku lu mu la mun a def ak lu ngeen mën a séq ci rànkeñ amul sens Modou li koy Balla Gaye di amee revanche yëpp yëpp yëpp boo ne moog Balla Gaye xaalis la ciy fayee ko bu weex taal moo ko dugal ci làmb amul leneen. damay dégg nga wax Balla Balla Balla Balla fan la toll ci yow maanaam dama mës a dégg ñu laaj la nga am loo wax ci moom Balla mooy sa mbër. non non kuy sa mbër. Yékini. Yaxya Jóob. Balla sa lan la. dara dañ maa laaj làmb ji rek ma neex sa idole la wala. non non. Hmm. <laughs> sama rakk daal Balla mooy idole am mais man Balla du sama idole. yow daal Yaxya mooy sa idole. man Yaxya mooy mais dañ maa laaj man leen seetaanu ma mbër bu dàq bëri Balla Gaye est que commencé ngeen entraîné bi nga ñëwee ak léegi seen écrit Grand Yoff noonu entraîné ko. te lamb bi saison bi tijji. non mbëri ñi ngi entraîné quoi mais écrit bi daa am ci mu nekk entraîné guñ. ku seen tête de file. tête de file Grand Yoff de file ay am na am na tête de file. <laughs> ay xale Zarko. Zarko moo nekkoon tête de file te Zarko daa daw. <laughs> non booy tête de file bi mi ngi ñëw. <laughs> bi nga demee gars yi dañ ne Zarko moo la woo ne na ñëwal toog. non Zar nekk ñu woon sax Zar moom mi ngi Espagne quoi. waaw moom mi ngi Espagne. kon yaay tête de bi. non parce booy loolu maa ngi ci ginnaaw gars yi quoi. seen bilan bi passé ak bi bi bi ngeen jot a génn est-ce que am na différence. waa daa mel ne am na différence parce que man saison bi nag lu ci bëri fekkuma fi mais après jot naa ci écho yi ñu ne xaw ma gars yi def nañ seize combats yaakaar naa waaw lañ def dégg naa am nañ ci six victoire dañ perte dix combats yëpp. loolu saison baax de. non non baaxul. est-ce que yéen a ngi waaj. ma yaakaar su ngeen génnoon ci loolu ba saison bi tijjee balaa ngeen di commencé est-ce que mën na woon commencé dafa waat saison bi tijji mbëri commencé jël avance est-ce que xam nga ni yaa ngi làmb yaa ngi daw. waaw làmb ñi ngi daw bu baax am ñun moom si làmb ji lañ nekk ci terrain bi lañ nekk xam nañ li ci nekk làmb yaa ngi daw promoteur yaa ngi contact te coow li moo dul bëri nag fii ak contact bi xam du ko yëgle te avance génnul mooy ñun ñëpp ñu ngi am contact ñu ngi déggoo gars yi ñi ngi waxtaan ak ñoom mais xam nañ ne bu avance génnul rek làmb taxawagul moo tax jarul wax ji di bëri te ñun tamit tollatuñ ci làmb benn tolluwaay boo xamante ni mun nañ ci dox ci lëndëm bi day fekk mu neex ñu rek dëgg la ay xale lañ ci yàgguñu si mais tamit ci showbiz boobu lañ nekk muy làmb xam nañ ni muy doxee xam nañ ni muy taxawee dañuy ñaan rek sunu borom suturaal ñu ñu teel a bëre mais xam nañ ne bu ñu ñëwaatee waa làmb dellu fi mu nekkoon. mobile demoon tukki ñëw bi nga bi ngeen ne takk Europe entraîné ba noppi am ci état boo toll am foo yóbbuwaat sa bopp bi ngeen ne takk dellu Sénégal. am na ñu la làmb boole ku la am na ñoo xamante ni ay moomam ngeen mais bu làmb taxee danaan du làmb mujjul xelam ci ñan la dem. waaw wax naa ko waxaat naa ko mooy dama koy wax ne am na ñoo xam ne ay génération lañ ci làmb mais xëy su ñu jëm moo ñu dul classé ci ñu taxaw ci biir géew ñuy siffler wala yu demee noonu du da nga leen di mën wala da nga leen di raw wala am na ñoo xam ne seen i coowu làmb bokkul bu ñu leen boolee ci stade bu ambiance bi dawee du ngeen bokk loolu day am ci làmb. mais ñoo xamante ne nii xëy na mun ngeen bañ a bokk lépp jëmm boole leen Malick Niang toog na lu mat trois ans bëriwul. ñoom nga jël avance Malick Niang. suba suba suba. Coen sama moroom la caat bu booy bambara mun nañoo bëre bu ñu naxantewul ñu génn bëre rek làmb ji day neex. ñooñu nga wax nii est-ce que Pambato contacté na la wax la ci ñooñu. waaw ci yow lay des wala ci ñoom. non ci ñoom lay sooxee rek du yàqoo ci man parce que man man loo xamante ne wóor na ma ne am naa ci dut wala bu ñu ñëwee damay wax c'est-à-dire ma ci waxagum. su ma àndalee ñàkk jaay ñu la yor. pare naa ku ci doon sama morom rek pare naa. xam nga bi may jóge fii ci moom laa njëkkee. waaw hmm. ah, baax na yàlla yàlla sotti. mu ne ko mobile de mënu ma su ma ko amee jël ne ma fi mu toll nii ñàkk laay bañ ne ma mobile la ma gën a lu ma mën a am. non ñaq da lay ñaq da rek waaye xam nga ne ñaq. Ah, bu caaxaan bul tax ma woo ko fii. billaay da lay fooyee rek moom xam na ne mooy loolu loolu. <laughs> ñaq dama ko wax mobile laa jëm mënoo soo demee maa la yóbbanti. Eh. Marle tamit seeti naa ko nee bañu la. Marle waaw Marle moom yàgg na ko bëgg mais bu taxawee suba ñu bëri ñoom ñëpp ay morom lañ xëy na ñoo ma jiitoo ci làmb tuuti nii rek mais mun nañ bëree hmm, te buñ bëree dina neex. kon baax na léegi mën nañoo jug dugg ci koñ bi. jël quelques potages dem seet fans bi am luñ ko yóbbul loolu mën naa nekk. amul problème. salaamaaleykum jàmbaar jaar naa la. waaw oh, delloo jaar. yaa ngi am jàmm. waaw maa ngi seen bu baax. ñoo seet seen ba seet si mobile. Mhm. bëggoon jël ay potages si moom loo ma wax ci mobile. waaw mobile euh, ñun day sunu gaañ la moom xam nga te du léegi. waaw yàgg na nekk sunu xarit boobu. dugagul sax ci làmb ñoo yarandoo fii ci koñ bi xam nga ñoo fi juddandoo ñoo fi defandoo lépp avant avant ay bërëg lépp lii di xew ko xam nga muy sunu réel gain aussi xam nga waaw di sunu frère dugg ci làmb ne ci làmb noo ko gisee moom est ngi gis sa bopp ci moom. waaw mooy mooy mooy mooy mbëru Arafat mooy mbëru Grand loolu loolu yàlla moom moo ko def moom. mu ngi voyagé ñibbisi. boo ko doon jox adversaire koo koy jox. waaw adversaire yi bëri na de bëri nañ de ñu si làmb ji waaw. mun naa ko jox Baye Mandione mu sàkkatoo ko. Baye Mandione meen. waaw waaw. Baye Mandione man sax boo ma ko joxee moo sàkkatoo ko xuma la ak moom. baal li ngay wax baal li nga wax Baye Mandione meen. gëm sa bopp du ñebe. yow xam nga loolu sax. <laughs> bi nga gisee mobile voyage ñibbisi andi état bi andi est-ce que convaincre na la maanaam sa xel dal na volume bi ak yooyu noonu. waaw sama xel dal na du volume kese de doole la indi. waaw dafa liggéey boo xoolee xam ne liggéey na. xam naa ci dara parce que ñun ba ñu nekkee fii ñoo doon ànd maaro mooy singa waaw ñu ñu ñuy liggéey lu neex. sa xel laal dal na ci loolu boom bu dee côté liggéey rek bi moom dafa suñu xel dafa mës dal ci moom parce que da ko mës a respecté da ci mës nekk lépp lu làmb di di di laaj ci mbër rek moom mu def see mës a nekk waaw loolu moom c'est clair. gaynde ziar naa la. delloo ziar bu wér Baye Fall. demoon bëgg ji wala nu demee nii. waaw gis nga de lool la demee de. ñoo fekk la nga tax dafa mel ni sportif waaw sportif laa ñoo seet si mobile loo ñu wax ci mobile waaw kii de ndey sama mag ñu bokk ndey bàyyi di sama gaayan tamit sa mag la waaw sànq li la doon expliqué noonu man maay raqam moom moom mu ngi wax dëgg fa yàlla mooy suñu gaynde mooy suñu champion li naan gën a jege gën a yey expliqué ma bi mobile duggee ci làmp suy bëree nu ngeen koy dundee waaw métti na waaw méttiwul waaw ndaxte ñun moom ay Baay Faal lañ lépp lu am rek dañ koy waaw dañ koy nangu xam ne suñu borom a ko def muy neex ñu xam ne suñu borom la muy naqari ñu xam ne suñu borom la mais kii leer nañu leer yàlla ñi ko daan ñëpp kenn mënu ko si. nga mooy problème waaw problème am mooy suñu borom mooy xool lu ko neex mu koy def rek. waaw te lu mu def tamit boo ko boo ko nangoo rek après am na lu mu la dencal si kanam te de tukki na ñëw waaw nañ xool li si kanam raw li ay bët. bi mu ñibbisee ngis état bi est-ce que dal na sa xel. bu baax instant yi lenn rek a des góor yàlla yi nekk ci làmb ji nañ lekk avance boobaa dinañ gis beneen mobile ndaxte man si kaw laa doon nekk mais kii léegi dama ko jël à stade maa koy dugal stade waaw ndaxte lu mu indi nii dal na sama xel te fu ma tëdd damay nelaw xam ne góor yàlla bu mu jaaxaar yow nga xam ne champion wa jaaxaar la ak kontaan na ci yow Baye Fall naa la. Eh, sant yàlla alhamdulilah. yaa ngi am jàmm bu baax. waaw. waaw ñëwoon seet seen ba muy mobile 2. Eh, mobile 2. waaw kooku ay champion champion yi waaw ñëw ngeen fu ngeen a ñëw quoi. moom loo may ci moom loo may wax ci mobile moom xam nga su ma waxee rek dafa mel sama sama bopp laa wax yaa ngi comprendre mbër la si biir mbër yi yaa ngi comprendre la si biir champion yi waaw dafa di mbër boo xam ne. man gëm naa ne amul kenn ku ko fi mun mais ay affaire yu ndaw rek la ay gàllankoor affaire yooyu. gàllankoor comme lan. waaw gàllankoor yi mooy ay cat la rek comprend nga comme luy dal gars rek. bon comprendre ma dal comme nan. waaw mooy comme lu ngay gis rek. non man gisuma ko ñii seetaan quoi man xam naa mais ñii seetaan. gis mooy gàllankoor yu ko topp xam nga parfois day am game yaa ngi comprendre game bi yàqu walla affaire yooyu jàppal baay loolu yàlla la quoi ay gàllankoor la defaru na ñëw na. te ñëw bi moom xam nga dafa dora doon ñëw bu garaaw si gars yi. kon fi mu toll nii daal lépp baax na daal fi mu toll nii. mu toll nii yow gisoo mbër xanaa fu mu toll nii lépp a baax laa la wax ni fu mu toll nii lépp a baax. baax na jaajëf. mobile. Uh-huh. fii ñu taxaw nii fii fan la. waaw fii suñu kër benn mag la suñu mag suñu xarit en plus nekk suñu idole muy Alioune Badara Kébé maanaam ñun xam nañ ko mu football treize ans professionnel. treize ans professionnel yëpp mosu si jéem a dëkk fudul Grand Yoff mosul jéem a daw ci lu dul bëgg-bëgg Grand Yoff bu jeunes yi sonnee lu amul seede baaxul gis ngeen bu robinet tëjee sax laa la wax day mujj ubbi këram ne fu waay jógee ñëwal nga root boo duggee nii kër gi day fees dell gis nga siège bi daa mujj wut siège spécial def ko. jàppale doomu Grand Yoff yi. pour social kese ñun Badara jënduñu juruñu jënduñu mais dañuy waxtaan ba ci yàgg nga ne ma da ngeen il faut ñu jóg dem benn nit koo xamante ne. ku leen di jàppale la kuy sonn ci yéen sonn ci waa grand yow waaw ma ne la kuy jàppale grand yow nga bëgg a gis kaa ñu dem du politicien du dara du dara li muy am moom moo koy dawal boppam moo ko ñaqal boppam alalu boppam lay jël mm-hmm. bokkul ci parti nekkul ci pouvoir nekkul ci dara sportif la comme ñun te ku nekk xam na sport nu mu demee métti gi métti ku ci mën a am alalam jël ko di ko defaat ci doomu aadama yi dafa jara kii tey boo xoolee footballatul mais day obligé jël ay jour yoo xam ne ay boo yu nekk ci nawetaan loger leen di leen encadrer di leen dimbale ba signaloo leen professionnel. ah loolu geste bu rafet la. ndax sport ku ne xam ne ni méttee. ñi ci am seen xaalis di ko jël di ci di ci tëdd. bari na kon su amee su defee geste boobu c'est à saluer waaw bu ñu sañoon nag buñ ko mënoon gis. non dañ koy gis waaw buñ ko mënoon gis gis ko. kii bi léegi léegi nee ko mu ñëw nee ko ma léegi mu ngi doon dugg gàlleem kii tamit nitam la benn booyam la boo xam ne tamit yenn problème yu bëri comme moom mënu dugg ci yenn gox yi ñii yu bëri ñooy nekk ci biir koñ yi ñooy mën a xam problème mu nit ñi ñëw suñu lañu ko. bërki démb presque lu mat voilà kii mooy Aline Badara Kébé bërki démb presque lu mat sant pousse-pousse roulant yoo xam ne pour ay indi handicapé la la jël yóbbul Cheikh Abdou Karim jëlaat ko duggaat ak moom biir Grand Yoff hôpital yi bu la ne lii rek preuve la kër gaa ngi fees dell ku ci nekk sa soxlay bopp moo la fi indi keneen ak keneen bu robinet tëjee mu ubbi këram amul garde amul sécurité amul dara mu ngi nii nii muy doxee nii nii lay demee léegi laa ko romb sama koñ setal di baletal yi léegi sama koñ laa ko bàyyi xaw moon sax ndax mu ngi fii nii lay doxee nii lay dundee xam nit la koo xamante ne tamit dafa jar wane parce que booy def lu baax dañ koy wane pour uniquement ñi ko ñi mën li nga mën te defuñu lii lañ ci jublu du leneen mu nekk nit koo xamante ne nii moom ku ñu seet si ñu am lu ñu wax ci moom dañ koy wax kon mën nañoo dem fekk ko salaamaaleykum. jàmbaar si waat naa la. yaa ngi jàmm. sant yàlla sant yàlla. ñoo seet sa mbër bi. waaw ah, mobile waaw. mobile mu ne du dem fenn te jaawul ci yow. ah dëgg loolu rafet na suñu rakk la. Mhm. donc euh, bu jaaree fi moom loolu yoon la. devoir am la def donc euh, euh, ñuy kontaan trop si moom. di ko ñaanal yàlla fi mu bëgg yegg ci carrière ak si àddunaam yàlla yeggal ko. ñu gis dégg gestes yi ngay def. mu nekk sa su yoo xamante ñu rafet la sa à saluer mm-hmm. ñu ne mënu ñoo def dara jaaru ñooy fi xam nga mm-hmm. nañ dégg nañ li ngay jàppale waa koñ bi ñi ngay jàppale sportif yi ak lépp te nga mënoon ko am def ko feneen wala nga téyel ko sa bopp uh-huh. mu doon loo xamante ni bàyyiwul ci jeunes yi koy def uh-huh. waaw euh, loolu dañ koy sante yàlla rek parce que yàlla suñu boroom moo moo def li ko neex tey ji ñun suñu amee bay ba mun a def yàlla mooñ ci xiir xanaa di ñaan yàlla rek Euh, mu xeeb dolli di ñaan yàlla parce que tey jii ñun Sénégal euh, pays de la teranga la ñu wax pays de l'hospitalité donc waroon nañu euh, mën a lii ñuy def nii waroon nañu war nañ suñu njiit yi waroon nañ ko gën a mën a def daal pour jàppale ñu si wala tamit ñun ñu fekk leen ñoom ñu koy def mais xëy na yàlla rek suñu borom mooñ ci xiir ñu koy def di xool li ñu mën a jàppalee suñu rakk yi donc nit ku ne li nga am nga mën a dimbalee bu ñu génnee fii yàlla def ñu nekk ay jeunes dem def suñu carrière sportive suñu ñëwee ñoom ñu ay sportif gëm ko trop donc di ay champion nga xam li ñuy daj ñi xam li ñuy daj la vie de tous les jours parce que mbër métier métier sport dafa metti surtout ma sport individuel donc dafa metti trop nga dëkk localité bu mel ni Grand Yoff donc vraiment boo demee parcelle am nañ seen i mbër donc di am ay roi des arènes nga dem Géejawaay mu am roi des arènes nga dem Pikine mu am roi des arènes Grand Yoff pourquoi te Grand Yoff gën a peuplé ñooñu donc pourquoi pas que jàppale bi war a am moo amul loolu moo tax donc di di di di leen ñaanal yàlla rek fi ñu bëgg yegg yàlla yeggal leen fa. soo gisee yeneen zones yu mel ni yow nekk dëkk ci yeneen gox. Hmm. boo leen ñaax loo leen di wax. ah xanaa ñu ñu dellu si yàlla rek xam ne àdduna moom léppay jeex loo fi am di nga ko mës a tëlee donc euh, jaamu yàlla si nit ñi voilà jaamu yàlla bi gënal suñu borom du tabax ay juma du du lenn lu dul jaamu yàlla si nit ñi ndax yàlla dafa lu mu bind yëpp doomu aadama moo ko si gënal. donc kuy jaamu yàlla kay jaamu yàlla si nit ñi ndaxte lu waaye mën di nga ko mës a tële donc lu may wax jeune yi nga xamante ni ay sportif lañu di ay international wala di ay borom teraanga yàlla boole leen ak nit ñi ne nañuy gëstu nit ñi ñuy jàppale nit ñi te yàlla tax donc loolu la am lu may wax. mobile soo amee loo koy ñaax. gis ko mu nekk sa mbër demoon voyager. te demoon États-Unis waaw ñëpp waxoon day daw. waaw di ñibbisiwaat mu dellu si ak état de forme bi mu am ñoo xamante ni pare nañ pour jànkonte ak ñoom soo amoon loo koy conseil loo koy wax. loo koy wax mooy mu mu xam ni moom champion la rek te xam ni moom àdduna ñii dañuy teel a sotti ñii mu mu yéex si ñoom mu xam ne tey jii ah, man gis naa gis naa seetaan naa benn interview si Balla Gaye muy muy wax si mobile je l'ai vu di wax ni mobile champion la ku mën a bëre la donc. j'étais fier parce que mun naa ni làmb ji booy lim cinq yi dàq bëre Sénégal da nga si boole Balla Gaye donc su Balla Gaye taxawee tey di wax si mobile kay donc loolu ñun ñi nga xamante ne du ay mbër daf ñuy gën a kontaan loo daf ñuy gën a ñaaxaat suñu mbër xam ne moom moo war a li si des moom la rek moom mooy mooy dugg si si arène bi ñun ñu ngi si gannaawam lépp lu mu lépp lu nga xamante ni war nañ ko ko mën a soutenir dañ koy def di ñaan yàlla rek li mu jëm li li nekk ci kanamam si carrière mu doon ay ay ndam rek ndax mu mën a doon ëllëg roi des arènes ndax Grand fu ñu mën a am fierté boobu. Hmm. moo bi ñu dellu si waat ci yow dégg nga li grand bi wax nga am sas bu rëy. Hmm. waaw comme ni ma la ko waxee woon bi ñu nekk sama kër rek parce que dañu waxtaan ba ci yàgg nga nañu gox bu ñu dem dañuy xool ki fa nekkal jeunesse bi wala ki fa nekkal lii ñun nag kenn moomuñu kenn mënuñoo jënd duñu ay application kenn téléchargé wuñu bu ñu demoon suñu kër ñu wax la xamante ne bi nga ñëwee gisoo ko sax parce que man am na nee naa la am na sama benn grand xaw ma nag ndax mi ngi këram mais bu fekkee ki fi nekkal jeunesse bi wala ku fi ku ñu fi parce que ñun ay sportif lañ moom ni ñuy amee lay amee sportif la comme ñun ak sport ni mu méttee bu mën ay am teraangaam xalaatu ci boppam xalaatu ci kenn dëkkalul yaayam dëkkalul kenn moom da ko bañ ba dafa dëkk individuel pour doomu aadama yi mun ko ñeme ñëw gis nga li nga fekk këram amul ku mu ci bokkal amul ku ci dëkk ci côté bi te boo leen toppoon ñuy ñibbi kenn dëkku fi gis nga li nga fi fekk ci ay bagages yoo xam ne du pour njabootam du pour yaayam du pour kenn ci famille nii la nekk ak ñëpp lu waaye mun a xewlet amul lu mu tànqamlu sànq laa ko bàyyi sama koñ muy bale tali ci mbedd mi pourtant mënoon na ñëw def defaaram xool lu mu jàppale booy dem mais day sol équipement nekkaat ak ñoom ci tali bi même bu nga ñëw fi teraangaam bi mu yëkkati la ko jox mais chaque jour bu ngeen taxawee bu dee cinq minutes lim la ci wax boo ko toppee da ngay jëriñu mu nekk nit koo xamante ne nii nii nii nii waxuma pour sama bopp mais dama bugguma grave di ko jàppee ni mu toll li muy def te téyegul ci dara loo xamante ne ni pour jeunesse bi la buñ ko joxee loo xamante ne nii dëkk bee ko moom yaakaar naa ne da koy séddale ndax ku yor poosu boppam mun ko séddale boo ko dénkee seen alal mu séddale waat leneen ko. kon yéen a ngi koy xaar mu dugg a jàppale wala am ku mu ngemb dugal ko ci pour a mën a bu fekkee sama xalaatu bopp lay déglu moom mooy politique. pare nga pour def loolu. waaw waaw donc defe naa ni depuis 2014 bi ma arrêté sama carrière ba léegi. Euh, euh, Grand Yoff ñi ngi lay sas naan da nga bëgg nga dañu bëgg nga nekk suñu maire loolu moom mooy seen wax la vie de tous les jours tamit euh, j'ai eu à apprendre après cinq ans defe naa ni comme li nga gis ni ay pots de lait la y a y a 3000 de lait pour les enfants donc moom la ñuy ñëw pour joxe tey lañ koy jot comme ni mu ko waxee dégg naa mu wax ko on a reçu 150 lits 150 fauteuils roulants pour les handicapés Euh, loolu maanaam joxe nañ ko fi mu nekk nii tey ñi ngi toll si lait yi nga xamante ni suba lañ ko war a commencé distribuer mu toll si 3000 mille de de 1 à de 1 à 3 ans donc ñu koy fas yéene jox commune bi donc mënuma bañal soo dëkkee si gox ñu ñu sas la euh, ngay doom am na loo xamante ni wàll woo xam ne ñoom ñoo ko moom bu ñu taxawee bëggal la ko munoo def lu dul ànd ak ñoom si loolu pour jéem a xool. naka la ñuy def développé commune bi ndaxte xam nañ ni du politiciens yi ñoo koy développé. waaw waa Wassare ñoo ngi leen di ziaraat ñoo ngi fii ñu koy wax ngéwél gi ànd ak mobile mu ñëw nuyu si leen. gaynde ziar naa waa waaw delloo ziar ñu ngi lay bëggee. yaa ngi am ñu ngi sant bu baax a baax alhamdulilah. fi ñu nekk nii mooy fan. waaw fii mooy Touba Arafat Arafat Grand Yoff. fi ñu nekk ngeen toog nii fi mooy fan. waaw fii nag mooy ngéwél gi Fall. waaw fii mooy Daara ji Daara Daara Baye Fall yi fii la ñëpp di daje macha fii mooy diwaanu mobile 2 nag mooy Douane Mobile 2 ñu seet Mobile 2 bëggoon xam kan mooy Mobile 2. Euh, naka lay dundee ak waaye euh, laaj nga lu am solo nag macha allah parce que nit balaa ñu naan baax na na ko ay mbokkam wax te yaakaar naa bu nuy wax ay bokk mobile fii ngéwél sax la ñuy wax euh, yaayam di sama bàjjan nag muy kenn ci man ba sama taaw sax mobile laa ko tuddee ma nag moom nu yàgg lool du làmb moo nu boole mobile fii mooy këram fii mooy léppam mu baax lool doon nit koo xamante ni tamit fu mu tardé rek. ay nit a ko fa tardeel arafaat fu ne am na fa jeetaay wala am na foo xamante ne dafay fréquenté mais fii day day fenn ci moom muy sunu nit bu baax nag. lan nga ci mobile de yow. Ah, man mun naa ne sax frère la ñu parce que ay doomu bàjjan ak doomu yaay la ñu ba pare man may géwélam di ko tëggal nu yàgg loolu boobu mbappat la woon ba ba ni muy bëree arène man ak moom musul xaddi musul dem benn yoon te yaakaar naa li ñu séq di ko def ci làmb ah, waxuma ne moo ko fi dàq waaye bu ko fi nit dàqee bariwut de ñaar la wala ñett te gëm ma ne am na ku ko fi dàq sax. ngay tëggal mobile 2 ku ne xam na mobile 2 dégg gi mu dégg yéen ko def ci moom wala ci moom la ne. waa am na yoo xamante ne don lay doon ci suñu borom am na loo xamante ne dañ koy def ci moom mais am na loo xamante ne itam ci moom la jóge parce que luy naaw a neex a sànni waaw moom bu doon ñenn ñi xam nga dina am problème ci ci ñun parce que ñun lu ñuy def du lu yomb te du ñëpp ko mën a accepter mais bu ñu ñëwee def ko ci moom rek facilement da koy jël moo tax day neex lool ànd ak moom rek ñu dem mu neex. est-ce que Batel Mobile na. est-ce que. répété mu dem mu war ngeen war a répété est-ce que yomb na. Euh, mun naa ne day yomb sax. waaw parce que bu ñëwee dañ naan ko lii la def moom mën nañu man lii laa bëgg ñu ñëw defandoo ko rek man yaakaar naa suma juum répétition yi ñu def ak moom lu bari ay deux jours trois jours la ñuy def ak moom rek quatre jours ci la ñuy yem répétition yi mais répétition yi sax mun naa ne day dàq làmb te bu ñu duggee lamb ji ñëpp ay kontaan macha allah mu doon ku neex a tëggal ndax euh, bu feccee mu neex bu waxee mu neex moom macha allah moom moom mun naa ne mbaru géwél ñi la sax. waaw na maa ngi ñëwaat. ok jaajëf. kenn nuyu naa la. waa sëñ bi ñu ngi lay bëggee xam lu ma neex seen ñii samay rax lañ ñu baax lañ waa kër seen ndigal lañ ñu baax a baax kii maa ko yar maag magam Adama yal na ko yàlla may jàmm ak moom mi ak sama rax yu baax yi te ay taalibe seen ndigal Fall yal na yàlla may jàmm tey bu ñu xewle ni ma war a dem nii tey am fu mu war a jaar nii am fu mu war a dem nii ñu woose il faut ma ñëw toj fii yéen tamit yal na yàlla may jàmm sama cameraman ak yow xam lu mu bëgg seen naka mobile dama ne ko kewal du dëb te dëb ja bëtt tey ni nga men sa yaay nga ndoro ana xaadim yoonu Bamba ku si jaar doo gërëm te doo réer te te teg gaynde gu la naan fii du yoonu Touba kontaan naa seen yàlla na yàlla jàmm yàlla ko yàlla mooy jàmm yen il boo beau il yal santé yàlla na yàlla mooy jàmm cameraman yow yàlla na yàlla jàppale si kattanu yàlla ak ki ngeen bëgg ngeen ànd ak moom ñëw ak sama boy sama rax yi yàlla na yàlla mooy jàmm. kontaan nañ kattanu yàlla. waaw delloo ziar yaaram. yaa ngi am jàmm. maa ngi sant bu baax naka la. fekk la nga toog ñu def Rouge Bordeaux xam ak dimanche bi. waaw gis nga waaw. ñoo seet si seen mbër. muy mobile. waaw ah, dëgg la kañ. mobile la moom mobile sunu mbër la champion la waaw. maa moom lan ngay wax ci mobile. mobile waaw moom mu ngi fi rek mu ngi waajal de ñu ngi waajal gars yi ñooñu lañuy xaar rek ñu ñëw ñu waaw. yéen mu war bëreel moom la ñuy xaar. non comme kan. ah na ñëw ku ñëw baax na instant bi moom mobile moom pare na moom ku ñëw rek baax na. jàmbaar jaar naa. waaw Fall baax. am jàmm bu baax a baax. sant alhamdulilah. taw fekkay. waaw bilaay. ndeysaan waaw mobile la moom nit ku baax la moom ku ñàkk ñaan ma dëgg yàlla moom amuloo ñu benn problème moom parce que dafa doon nit koo xam ne euh, comme ni faral di wax rek euh, fa la dëkk mais fii Ngéwél gi Fall moom. maanaam mooy base bi quoi maanaam ñun mooy ñun daal euh, ñu ñooy léppam daal waaw barki sëñ maam te ku ñàkk ñaan la moom dañ koy ñaanal yàlla xoola combat bi mu jur ci nag dina ko yàlla may ndam loolu la ñu ñaan ci yàlla barki Seex Xaadim gaynde jaar naa la waaw maa ngi delloo si mo yaaram am jàmm baax waaw di leen bëggee waa wasaare làmb ndax waaw ndax lii moom wasaare làmb la ndax wasaare ngeen ko biir Arafat dugg biir ngéwél kon dañ koy àndal rek ji wasaa noonu laa ñu fayee la noonu. waaw naka naka naka Grand waa Grand Yoff a ngi nii neex bari jàmm am ambiance fii Grand Yoff ñun manqué wuñ dara te ay ndaanaan a fi dëkk ay champion fi dëkk ay artistes yu mag a fi dëkk ay champion ñoo fi dëkk ay jeunes yu am nangoo liggéey ñoo fi dëkk ñu gëm seen boppoo fi dëkk ñu bëgg mobile 2 tamit ñoo fi dëkk ndax zone bu nekk nga am ngay tiitaroo te yàlla dafa defal ñun ci wàllu làmb moom la ñu yàlla jox. mu yëg ñëpp nag bëgg ñëpp te li géwél naan tey sa njàmbaat neex yow mi ñëw géwél def ñu xarit waaye moom njàmbaanam daa war a forox saf kaane ndax nag waaw du judd jéeri du mbaram taane fii la dëkk te bëggal ñu boppam nag kon dañ koy ñaanal saa su ne rek yàlla defal ko jàmm te bu soobee yàlla ñu dina xamal ne nag ñu ngi ñëwaat ndax ku ne xam na ne tournant bi ba tey dugaatagun te bu ñu ñëwee daa war a mel ni suppu jaan mbaa mu mel ni daxin dë suppu jaan nu muy mel dangar ju bari ku ko <laughs> ku ci naan di jaddi jaddi ñu ngi ñëw nag ak yeneen i fem ndax dañoo war a génn andi ay chorégraphe yu bees ci làmb ndax spectacle ñoo ko moom fekk nañ grafi ci làmb mais dañoo bëgg andi spectacle yoo xam ne ci saison bi ku ko gis xam ne mobile 2 ñëw na ak beneen façon bi nga xamante ne waaw kenn ngéwél ngéwélistèrement daal. bu mobile voyagé ñibbi si andi état forme bi mu andi bi nga ko gisee naka naka naka nga ko dundee bi nga ko gisee moom mu. waaw loolu nag sama xol dafa sedd xam nga lu tax euh, bi mu nekkee États-Unis saa yu ma ko woowee appel vidéo dama ko naan ma xool. <laughs> ma xool ma xool foo toll. di ko xool fu mu toll rek ndax ndeysaan ñun ñun ñun moom rek la ñu am te bi mu ñëwee suñu xol daf dafa sedd guy suñu xel dal xam nañ ne mën na bëre barki Serigne Touba kenn dàq koo bëre ci làmb ji mobile ragalul ñun xam nañ ne am na fit bu baax a baax a baax a baax làmb kay la kenn xamul li mu doon rek. waaye ñun qualité yi ci moom xam nañ ko ndax topp nañ ko mbapat wax dëgg yàlla ñoo ko tëggal ci mbapatu baas yi tëggal ko ci mbap mbapat yëpp ba yàlla def mu dem arène ñu topp ko di ko tëggal kon ñun xam nañ li ci moom bu baax a baax baax am na jom te am na ngor mën na bëri te am na fit waaye làmb la kenn xamul lu mu doon waaye nag tubaab dafa ne il faut bi bien reculer pour mieux sauter on a bien reculé barke borom Touba du ñu sotee dañuy soo <laughs> bu nu ñëwaatee dina yàgg dina métti ñu ngi ñëw nag pare lu bees tax tax jaa ngeen jëf. gaynde ziar naa. delloo ziar bu rëy. bu baax baax. am tawfeex bu baax. waaw ah, gis nga tey ñoo grand yow seet si mobile 2 mu nekk seen bët ñu fekk ko ngéwél gi. waaw ñu ngi ci kontaan bu baax a baax rek waaw mobile moom sunu waay la sunu xarit la sunu lépp la wax dëgg fa yàlla boo ñu gis boo ko gisee nii chaque jour nii lay mel ak ñun rek amuñu benn xaar ma yàlla ak moom. waaw di champion nag moom nag lañ yaakaar xëy na àdduna bi moo demee noonu waaw yàlla def mu nekk ay tolof tolof waaw incha allahu rabbi bu soobee yàlla waaw bientôt ñu ngi ñëw bu soobee yàlla. bii ba bu ñu ñëwaatee xam nga lu ñu àndaale. cur sa góor koo ñëw wax leen sa góor koo ñëw. ma lambaa yanga lambay biram dumbe nga ca nguy mbaa jojo degen ma ca ngoon na lu rëy la ñoo jara woy mobile yaa jara tëggal yaa jar soxi takk yaa jara kañ yaa di waago ñaay mobile de nee ko li nga yàpp ci béy rere ko ci njanj fanaan ko ci weer tëdd ko ci lal bu nooy boo daanoo mu tas ki ñaan ko faj yàlla def na ko e sa doole mooy sa xarit waaye ñun bu ñu jaaxlee ba nga làmb ko sunu xel dal bisimilah may tàggu yàlla tàggu yonent bi tàggu jibril alayhi salaam bisimilah babit jati bat bisimilah por pom poratu pom ma jaglu bisimilah ut rahmaani am am amaani am yaay am ni suuf di amee am indi fox foqet bu bëree mobile am ci bu bëriwul mooy kenn du am tey ma jooy balaa gunde sin maadaam njuma ñi mi ngi réere mbolom soon xapali ngone ngi dee xawun biri ma ndeel a ngat njaay mbàkk nga daanoo làmbaay bismillaay may tàggu bum làmb te ngi jéy maa jéy sum di jéem a suwe nga laañaar mbañ faale nga ca ñoxo bu maasee nga ca ngurgureen jibi fee nga ca pay-pay Ousmane Diagne nga ca njomb Amadou Ba nga ca waalo Amadou Bassi na nga ca waalo Modou Ngom jiyee nga ca sacin bisi na nga ca jokkel alaaji yu ma la be nga ca nguy bay ma dem ba nga mbeñen cey ma jooy danay jogo may tàmbe ni mbor sol saalaaji ndendek ma faal ndendek teeñ ndendek damel ndendek birima ndendek ku yam ndam nga dañel ay ca <laughs> lii mooy ngéwél mobile ñu ñoo ngéwél fii toj na waaw fii mooy sama kër li taxaw a taxawoon sax ma toog kër ga waaye man moom boo may seet rek dañ naa la demal gaaleeb kooku nga doon jël léegi mooy petit copet waaw di wax fan si yëpp duñ ko xamee rek tuule ki yaa kamana li mu wax dafa neex waxul dara waxul nii nii nii respecté wu leen de billaay waxul <laughs> barki yonent bi waxul ndax boo xoolee Oscar bi ñuy def concours bàkku njugatin bi moo ko jëloon moom artiste bu mag. doo ko teg ci yoon ak ni mu ko riimee. man damaa jaaxle sax. loo waxul leen boo déggee ma naan la bu ma defee day neex lii la ñoom laa dëkkal ñii di wax ñii di tëgg ñii di fecc nii laa mën a mel. ñëwee stade tuus mu neex. waaw te boo xoolee man li may tuus yëpp dañ koy wax xëy na kii moo koy tëgg mais moom mooy wax lépp waaw ñoom ñaar ñoo bokk ndey baay bi may mbapat ba fii ma toll nii la ñu def. kii mooy ñëw xalaat benn bàkk wax ko ci gémmiñam kii tëgg ko buñ demee stade moom mu yor micro di ambiance kii di tuus ñuy bëre. nga fësal ko ñëpp jot ci. jeex na tàkk noonu la demee. kan woon fii. waa fii kii lañ fi seet si woon muy xaadim doomu Baye Babou ji kii doomu Baye Fall la. xaadim que xam nga benn affaire émission bi dafa baaxoo benn bu ñu defee émission bay waaj a tëj. il faut que mbër mi xool ka nga xamante ne moom la naan kii mooy sama fans mooy sama supporter am na fu ma teg yëg ma nañ dem seeti kooku ñu am fu ñu jàdd mutal la tuuti teraanga mu ne dala koy andil. ah loolu day wax dëgg yàlla dama koy accepter ak euh, honneur nag wax dëgg yàlla mu neex ma lool parce que fecciwul kóllëre ndax li nu yàlla boole man ak moom nee naa la du làmb ndax am na loo xamante ne dañu ko bokk te mënuñu koo séddoo ginnaaw sëriñ bi nu bokk man ak moom yaayam dey sama bàjjan nee naa la doom ji ma njëkk am sax moom mi laa ko tuddee muy kenn ci man nag wax dëgg yàlla ko um, wàccul bu fekkee da ngeen dem ci kenn koo xamante ne maire la ci moom mu ñëw ci man ah, wax dëgg yàlla wàccul wàccul yoon bi benn yoon teg na ko ci yoon itam jaaral na ko fi mu ko war a jaare ndax ah, ah, nit ku ne da nga naan wax ma ki nga wax ma sa jikko ma wax la ki nga waaw noonu demee moom si jëm boppam day day day nit koo xamante ne farsam day day farsam ak mbalagam bu bari sax day tax ñu naan ko mobile dafa mën a tooñ dafa mën a tooñ mais noonu la amul sens interdit fii Grand Yoff fenn. te doon na nit koo xamante ne dafa neex a àndal parce que du koo xamante ne compliqué na ay mbër ay ay mbir wala muy muy muy muy changé wala des fois da nga koy gis mu kontaan ànd ak yow des fois nga gis ko mu fas kanamam ba dootoo ko ñeme gi demee noonu mais ni mu mel nii boo ñëwaatoon suba ba ginnaaw suba daaw ba daaw jéeg boo ñëwee euh, euh, ni nga koy fekkee macha allah moo tax nag kontaan nañ ci affaire yi bu baax a baax a baax kontaan di ko di ko ñaanal tamit xam nga euh, boo sumbee mbir nga doon ci lenn loo xamante ne dañ laa bàyyi xel. mobile du ma ne mbëru koñ la wala mbaru gox la mais mbëru mbaru dëkk la ñun ay nitam lañ dëkk ak moom rek mais mobil ci jëm boppam euh, euh, askanam as askanam laa lax man damaa ak moom dañoo ànd ba Ndofane gi mu dëkk dañu ko faa yónni moom Ndofane dafa am ndénkaane goo xam ne dañu ko faa yónni muy koo xamante ne entreprise laa ko tudd sax parce que ñi yaakaar ci moom dafa bari kon waru ko caaxaane benn yoon dafa war a lu bu baax a baax a baax a baax teg ko ci yoon instant bi nag sunu xel dal na. waaw am na fu ñu jaaroon am na fu ñu toll te xam nañ fi ñu jëm incha allahu dañu koy ñaanal yàlla defal ñu jàmm rek mu xam fi mu jëm te man xam naa ne incha allah dina ko matale ndax euh, jooy ñu dara ci moom macha allah. waaw mobile léegi jox ko teraanga ngay ñëw yegg kër ga. waaw xam naa noonu la ñuy def dañ koy daal di jox teraanga daal di yegg kër wax ne comme ni nga ko waxee rek parce que tamit nit ku nekk nit nga mën a doon moom desalu ma maa ko desal mooy waxtaan bu ma neexee tamit dama naan ñoom desaluñ ma maa leen desel mooy li may wax chaque jour si ñi leen xamul te di leen seede muy ñoom muy petit muy kum ci mën a doon petit coppet xaadim ak kër gi yëpp mooy ñoom ci seen liggéey ay géwél lañ mais bu dee ci liy daw seen yaram muy deret ci li ñu bokk ay baay faal lañ ndax ñoom seen baay géwél la moo ne ci deretam mais dund na ba ni muy dee musta tëgg jigéen fecc ñoom ci laxasaay lañ judd seen yaay Moustapha la tudd kon ñoom ci lii la ñuy dox seen yaay sëñ Mourou Moustapha Fall lañ ko tuddee seen kër seen papa amul doom bu tudd Tafa wala moom ay xaadim la am ay Fall ay baay Fall lañ mun nga leen a ñàkk xam nag leen a gis si seen i tërëre seen i melokaan seen liggéey yóbbee leen ko ngay wax si ñoom lu ne mais nag muy ñoom niñ koy waxee chaque jour fu nit ñi nekk ak fu tele nekkul baal nañ ñëpp jégal nañ ñëpp. tubaab bi nee na l'apparence est souvent ah, noonu la demee moo ko bëggoon waxaat ci tubaab damay juum mais comme ni ma ko xamee muy ñoom jégal nañ ñëpp di ñaanal petit mu nekk xale bu ndaw dem ba gox bi mu dëkk mënatu ci tëgg fenn mu yegg mënatu parce que tamit day métti yàlla mooy def lenn ci nit mënul tëgg fenn mu yegg ñun mënuñ sax mënatuñ sax dem soiréem parce que boo ñëwee soiréem tey amoo foo toog wala amoo foo fecc doo comprendre dañ koy ñaanal noonu ko sunu borom wuysee ci début carrière am muy xale bu ndaw defagul lenn. yàlla suturaal ko aar amul lu ko ci yéem mun naa tëgg mun naa woy mun naa fecc mun naa taasu li mu def nii léegi tëgg la ko gën a mën mun naa tëgg tama mun naa bongo dañu koy ñaanal sunu borom mi mun a saxal carrière yàlla na ko sunu borom jàppale arki xam nañ ko bu baax parce que moom mooy paaka nañ ko ñaanal rek yàlla baax na jaajëf waa lii ay body la yu mën a yendoon nii rek di ci fab sama turandoo comme booy bi day def ay grimace affaire yooyu noonu <laughs> waaw yaa ma gën a waaw. kon gis nga nii la. bëgg nañ ci nag wax dëgg yàlla macha allah kontaan nañ ci ah du ma ne guleet parce que lu ne man ak moom séq nañ ko. dañu mën a toog fii xam nga di ko exprimer wu di ci jéem a wax lu bare bari mais yaakaar naa lii benn détail la sax laa ko mën a tuddee mais kontaan naa ci bu baax a baax a baax macha allah di ñu ñaan yàlla nag def yokk ko bu baax baax a baax. yokk def ak def def defal def ko defal ko jàmm bu baax a baax a baax macha allah sans waay la kontaan nii nag la dëkk man macha allah bëgg nañu bu baax a baax a baax di leen jaajëfal nag yéen waa wasaare lamb xam nga yenn seen émission bi xam nga suñu borom def ci jàmm mu law mu law ba euh, turu turu turu télé bi wasaare wu fépp ci àdduna bi macha allah incha allah jaajëfaay. waaw gis nga nii lay demee nii lay demee chaque fois nii lay demee bu ñu jógee dem seeti fan si seeti ñëpp seeti supporter bi nii la fi demee tey. ñu doxandu delluwaat ba kër ga mobile aca ñu jóg dem waaw gis nga mobile dugg nañ Grand yof mu neex fu ne ñu dugg fa ñu gis ni nga amee jàmm ak waa koñ bi lu yombul am na mbër yoo xam te tey bu ñu dee génn dañuy jaar fii wala làqatu mais ñu gis foo jaar saafoonteeg nit ñi xam nga mu mel ni làqatu wala ko da nga dugg seen biir. waa parce que ñun fii lañ dëkk ba pare tamit ñun dëkkuñ si ay gox yoo xamante ne nii dañoo war a nekk fii di ay nëbatuwante wala moytuwante wala lii ñun fii lañ dëkk fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màggee defuñu fi lu ñaaw wala ñu def fi loo xamante ne war naa mën a tax ñuy daw di làqatu nit ñi wala lii wala laa fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màggee en plus tamit ñoom lañ juddoo ndool ñoom lañ yaroo ndool ñoom lañ màggoo ndool dëgg la suñuy liggéey différencé na ak seen i liggéey suñuy temps tamit mayatuñu ko mais temps buñ si am lu mu ndaw ndaw dinañ def tuuba dugg seen biir gisante ak ñëpp yee boo xoolee bi ngeen ñëw di ma jël si terrain laa jógee fubal yi ak yooyu noonu yooyu lañ dund ak ñoom quoi parce que tamit bu ñu xewlee ñoom ñoo ciy daj yenn coono yi kon c'est normal tamit ñu du génn di dugg seen biir ku ci nekk tamit ñuy xam li la li nga yittewoo ak yeneen ak yeneen luñ ci mën a faj faj ko luñ ci mënul faj tamit ñu ñaanal suñu borom dimbale la ba nga mënal ko sa ne mobile mooy mbëru Grand toll est-ce que loolu xam nga ko est gaa yaa ngi def sa xel. waaw loolu moom yàlla def na ko suñu borom dimbale nañu gox bi rey na lool mais amaana ñëpp ay champion lañ mais nit ñi am nañ si ñun yaakaar lool ñu ngi bàyyi xel tamit sasu doomu aadama yi di def tout lu ñu mën pour yaakaaru nit ñi bañ a tas quoi waa incha allahu rabbi. est-ce que mobile dina waaj komba xam na komba bi tey sama bakkan laaj teg boobu ma ñàkk est que mobile moo ngi waaj loolu ak li mu jot a génn dem ñëw boo xam li koy xaar ci làmb fi ak fi làmb toll làmb ji rafle mbër bu mag rafle maanaam ñoo xamante ne ay révélation lañ te yow nga nekk sa xel waa nekk foofu est-ce que loolu tamit yaa ngi koy bàyyi xel. waaw ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax mais ba a mun a xóot suñu borom defal ñoom combat mais ñu ngi koy waaj bu baax te ñun wóor nañ ne ni ñu koy waajee grand fa nga koy waajee lu ëpp noonu mais bu soobee yàlla bu combat taxawee la doomu aadama di doo ko xam ne génnuñu woon pour dem di caaxaan wala génnuñu woon pour dem di leneen parce que comme li ñuy wax rek ñun dafa am foo xamante ni position boo xamante ni nëga nii ci làmb foofu la ñu waroon fekk. muy comme fan danga may wax mu leer xam nga boo ko jàppee di ko def code di ko def code di ko def code man mën naa xam yow mën nga xam mais ñi seetaan duñ comprendre. tey alir bi ñu génnee ci làmb bu ñu ko continué woon heure bi duñ bëri ci position bii nii maanaam bu nekkul fi ponkal yi nekk tey dañu nekk si ñu topp si ñoom mais amaana suñu borom moo ko dogalee nii benn retard bi am ci tuuti mais chaque jour li may wax booy mooy retard amu ci parce que tamit tey boo xoolee ñun ni ñu débuté ndool ci làmb yëpp tey ñun la suñu borom suturaal boog suñu tournée ñi ngi koy dégg ci làmb ba tey mais ñi nga xam ne ñoo génn ndoog ñoom première journée ba tey ñu nekkoon suñuy morom làmb di leen bàyyi xel di ñu bàyyi xel tey tuddatuñ leen ci làmb tey noonu la suñu borom di dogalee tey ku mel ne Kaaw Cissé ñoo génnandoo ku mel ne Pape Cambrène ñoo génnandoo ku mel ne Trompeur ñoo génnandoo ku mel ne Loo Sodd ñoo génnandoo man ñooñ laa débuté ndool ci làmb kon tey man bu may wax sama bopp retard rek day mel ne dama leen xaw a xalab mhm. moo tax man du may bëgg di waxee foofu mais nañ ñaan yàlla làmb taxaw suñ kanam. tey su ma ne la woon tànnal sa adversaire wala boog nga ne ma ñii man ak ñoom làmb boole nañu amul na làmb bi wujje amee amatulee la làmb daanu. parce que da nga doon am kii du ma dépassé wala kii du ma raw wala kii maak moom dafa war a neex mbër dañoo war def loolu mais bi ñu ko bàyyee ba léegi da ngay jël adversaire boo xamante ne du sa adversaire da ngay pare naan su ma sañoon kii laa waroon ba wala kii te pourtant boo ko tuddoon promoteur mën na koo gis dem doxal la yow ak kooku pourquoi pas du ngeen def loolu léegi ngeen bàyyi communication boobu. non man bi ma laajee dama wax ñu ma bëgg a bëreel. kan nga kan kan nga waxati woon. dama ne la caat booy bambara mun nañ bëre ne la Quench mun nañ nga dem seeti naa ñaari mbër ñu tudd sa tur seet naa maarale bëgg na seet naa ñax jëriñ bëgg la ma ne la amul ku ma ci bañ si ñoom ñaar mais man sama suwaaw bopp bi ñu ma laaj ñooy laax mais ñi nga xamante ne tudd nañ ma it waaw Malick ñaar bu ñu mayee chance ñu bëri. góor soog nag. baax na. ba ci gàgg de. mun na nekk. kon gars yi yéen a ko gis. mobile ngi nii mais est-ce que mobile am na beneen sport bu muy suivre moo xamante ni bokku làmb boo xamante ni gën na koo bëgg quoi di ko seetaan wala mu koy pratiquer lan la bu dul làmb. sama bi mën nga football. <laughs> waaw mën naa football moom. <laughs> non ak ni ma la gisee nii est-ce di nga daw. non damay daw man athlète laa nag booy loolu de <laughs> mën naa football quoi man a bëgg quoi. mobile est am na waykat maanaam mbalax. Wally Seck. Hmm. waaw da koy dund bu baax a baax. waaw mais bu fekkee sama woykat préféré Thione Seck la. waaw yéen famille la ba tey génn. waaw génnul dërëm bi génnul gaal gi. mobile lu mu gën a bëgg ci lekk. man nag yaakaar bu tas laay bañ ak bool bu amul dara. bañoo dara daal ci gàttal <laughs> mais la moo tax mobile dégg la moo tax mobile bu feccee mu neex bu tousee mu neex communication am sax dafa neex nit ñi dañ koy bëgg di dégg. waa loolu nag suñu kër la de <laughs> c'est man la ci yàlla def maanaam xëy na man maay faral di génn ci bi di wax wala affaire yooyu noonu <laughs> man suñu taawu kër bu jigéen muy mbenn daraat fecc sama mag bi ma topp ci moom xat yi day fecc kër gi la mooy loolu loolu. ñu la daan dégg ngay tagg sa bopp di wax man la sëtu diw ak diw dañ koy laajte di ko namm am na koo xam te dafa ne boo demee loolu na la ko wax loolu la. non oh, temps xam daa benn boobu nekk ci gàllam ku ne benn mu ne la Sadio Gureye rul benn booy fan yii moo ñu sonal gaar indi rek. loolu waaye dañoo xam ku ne nii mu ne la Sadio Gureye rul képp xamul lii la. waaw doy saaga. <laughs> billaay est-ce que doy saaga sax man daal xaw ma fu mu ko <laughs> ma yóbbante loolu. waaw waaye li ma koy waxee rek dama koy wax defee day neex ndax Saala Ngoone yu ko mooy sama maam man wéy na laa juróom-ñaari yoon <laughs> dëgg yow moom yaa ngi dégg yow mi doon laajte loolu. nañ ci yow. waaw delloo ñoo leen gën a kontaan tamit di sant waa koñ bi di sant sama waa kër di sant sama waa famille yëpp tamit di sant sama yaay bu baax di ko ñaanal mu yàgg fi di ñaanal sama papa fi mu tëdd suuf Touba oyof ci kawam yàlla xare ko ci daw si di gërëm waa Amérique fi ma nekkoon. ama di gërëm sama waa kër ku ci mel ne Cheikhouna ku ci mel ne Baye Zal sama rakk Maati Mon Ndiaye seen grand frère ba Canada di gërëm waa Arlène bi waa 116 waa Jamaica Queens Lamine Fifty maa ngi koy gërëm di gërëm waa waa Arlène 116 bi yëpp di gërëm Mafal di nuyu Ablaye Sarr sama baay daaru bi taalibe baay Abdou Khoudoss bi xam di nuyu ñoom Bousso waa 8 avenue bi waa Lonox bi di nuyu Fallou Lo bu ndaw xam nga Yaaya waa di nuyu ko ci mel na xam sax sama dóorkat bi maa ngi nuyu waa Amérique yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp bàyyiwuma fenn fenn fenn fenn maa ngi bégg gaa yëpp di ñaanal ñëpp di wax ñëpp yàlla leen suñu borom defal jàmm li leen fa bàyyi suñu borom yokku leen xéewal ba ñu mottal lépp ba mën a ñibbiseeg jàmm di nuyu ñëpp di nuyu Ahmadou Bamba Diop xaadim di ko wax ne namu naa ko trop maa ngi koy siyaar lu bari moom tamit maa ngi siyaar ñëpp di béggee ñëpp daal di wax ñëpp nañu ñaanal waaw di ñaan suñu borom làmb taxaw balaa yàgg dara ndax comme niñ koy waxee rek boo waxee pax ba mu su ba mu xóot nga tibbut suuf def ci ba pare daal di suul gane jiwul daa ñibbi waaw nañ ñaan yàlla làmb taxaw léegi nit ñi xam incha allah. ok gars gis ngeen ni lay demee ñu seet soon tey mobile waxtaan ak moom ci làmb waxtaan ak moom fa mu demoon mu dellu si waat lim na ay adversaire am nag su ko sañoon nee na day bëgg Quench su ko sañoon bëgg Thiatou Boy bàmba ma tegal ko ci Garga 2 Goro Sock ah Marley Thiatou Boy Bamba xam nga ñàkk ñëpp.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 san bëree ñu ko kebe ñaa ñi ko seex jëli kebe ak sëñ Basiru waaye lii neexut ci tur yu mag tur yu mag yi waa lii neexut ci jëli kebe sëñ Basiru waaye ak jëli kebe sëñ Basiru waaye lii neexut ci ñaari tur yu mag yi ci Wassare Lamb revue de presse bu neex mereef bu neex ku bëgg a gis image yu leer caméra yi nag déggu Sénégal États-Unis d'Amérique la jógee set wicc leer nañ lii neexut wasaare lam wasare